94 milliards yi temps yi xaw na lëmbee dëkk ban jàngat nga ci mën a am andi. waaw 94 milliards yow yaa wax 94 milliards mais ki waxoon 94 milliards waxaat na beneen chiffre bu muy 46 milliards kon moom ci boppam lañu ñu war a laaj loolu moom nan la ci taqee ñan ñoo ci taq. ña nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllum justice nañ ci def taxawaay bi nga xamante ne moom moo ci war puisque nag dañoo war a leeral Sénégal yi xam nga boo amee jafe-jafe doo créer euh, bruit pour étouffer jafe-jafe yi nga amoon Ousmane Sonko en réalité dafa war a def face au peuple sénégalais leeral balaa muy dem élection mu leeral peuple sénégalais lan mooy responsabilité ci loolu nga xamante ne tey ma jàmbal jaañ génne na ko génne ay preuve teg ko si la table na na na na Ousmane ko wax ci loolu moo gën muy wut beneen bruit boo xamante ne mu ngi koy créer mhm. commencé woon ci 94 tey mu ngi ci 46 ëllëg mën na leen wax 12 ëllëg mu waxaat leen 1000 puisque nag ci dëgg-dëgg mhm. discours am yëpp da koo tabax ci mensonge. pourtant pourtant nee na déposé na déposé na plainte au niveau du procureur. le procureur va va s'en charger pour fair son travail donc loolu ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoom lañ ci indexé ñoom lañ ci interpellé en premier lieu Ousmane Sonko nañ taxaw ak peuple sénégalais leeral ko moom Ousmane Sonko nag daf ci am double responsabilité. ci nag moom moo am engagement bëgg a jiite réew mi kon boo bëggee jiite réew mi yow si sa bopp. bu ñu la tuumalee indi ay preuves yow yaa war a dem ci presse bi leeral ko puisque moom il était prompt a aller dans la presse pour dénoncer mais bañ ko wax bañ ko waxalee ci 94 milliards yooyu ba léegi waxu ci tudd ci bam ci njëkkee wax dafa wàññi 94 ñëw ci 46 kon nag sénégalais yi ont droit à la vérité pour quelqu'un qui prétend diriger le Sénégal mais loolu daf ñuy rassurer rek. Mhm. ci personnalité bi nga xamante ne tey moom la Ousmane Sonko woon Sénégal yi mooy tout son discours da ko tabax construire ko ci mensonge ak manipulation euh, mais lu dul dëgg du yàgg.